jaar ci li gën a fës ci xëtu yéenekaay door ak le quotidien l'observateur jërëjëf soxna Asou l'observateur nag demaat ca Gambie dëkk bi naan yang foofa nag semaine ba la passé fitna doxoon na ci diggante ay doomu Gambie ak doomu Sénégal bu fa faatoon kenn ci ñoom ginnaaw rek buñ ko jàppee muy sàcc ba taxoon kon ñu daal di taal ñoom sénégalais ñu taal seen alal ba taxoon kon yenn cas bi ñëwaat na nag ci pêcheurs yi nga xamante ni seen i gaal ak lépp daal caas ak fii la yëpp lakk nañ ko journal bi ñëwaat ci li nga xamante ni mooy audition Birame Sileye Diop Guy Marius Sagna ak Clédor Sène wante tamit nappkat yi nga xamante ne ñett lan ñàkk seen bakkan bokkoon ci benn njaboot gis nga leen ñi nga dëkkoon ci Caaroy Géej ak Aliou Cissé jafe-jafe mu am ngir convoqué joueurs yi jëm rek ci éliminatoire Coupe d'Afrique beneen journal bu ñëwaat moom it ci li nga xamante ni moom mooy rapport bi euh, ay borom xam-xam génne nag ci Amérique tuddee ko kon group bi mi ngi tudd Freedom House ñoom na jàpp na ni Sénégal bokkul ci fukki réew yi nga xamante daal ñu nawoon na leen ci wàllu liberté wàllu démocratie li ko waral mooy kon jafe-jafe nga xamante nemmeeku nan ko état de droit bin salfaañi li koy wan image bi rek firnde la ci gis nga kii ñu ko jàpp di ko ñu wax it ci journal bi di euh, journal bi ci topp waaw Le Soleil moom gis nga ko ab dossier la def spécial jagleel ko tout tànk yi nga xamante ne dañu am jafe-jafe ak yoon kon koy wax rek justice des mineurs ak tamit maison nekk fii ci Anne Maris ku ne xam ne ni foofu leen bi ci loolu daal di ñëwaat beneen journal comme waxtu bi dañoo xot gis nga ko tamit mbiram aj ak màkk geeg yi ni kon Arabie Saoudite Riyad capitale ba condition yi nga xamante ne ñi bëgg aji ci jamonoy mbas mi daan ko daal di subir ba tax na kon rek chance Sénégal Sénégal ngir daal di bokk ci yooyu aj daal daanaka naax saay na rek ak professeur Malick Sall mi nga xamante ni moom it gis nga ko dafa mel ni yenn cas bi dina chargé na Ousmane Sonko ak tamit jafe-jafe yi nga xamante ni yi taxi yi am nañ ko fii ci Sénégal bu ginnaaw Walfadjri li ñu wax le témoin ak tamit Sénégal ba léegi rek ñàkk place am ci wàllu réew yi nga xamante ñu am démocratie ak liberté li ko waral mooy gis nga ko moom sa bopp geeg wax sa xalaat geeg yëngu yëng yeeg opposants yi ni tëj ak manifestation yi ñu fi tere ak fitna gi tax na kon réewum Sénégal booleetuñ ko ci réew yi nga xamante daal wóor na ak tamit am na liberté buñ ko ci le témoin quotidien exploité rapportu Freedom House di benn think tank kon nekk fële ca bitim réew ñu wax tamit ci euh, wàllu tàggat yaram gis nga ko kon euh, fanweer ak benn gaynde yi nga xamante ni kon war egg nañ fële ca Brazzaville ca Congo nar a jàmmarloo ak dëkk ba jëm rek ci éliminatoire cinquième ak sixième journée Coupe d'Afrique des Nations war a am ca Cameroun ak tamit ginnaaw stade ñu wax sunu làmb ak tamit jàkkaarloo bi nar dox ci diggante euh, Modou Lo ak Ama Baldé juróom-benn fan la ci weeru avril Laaj Malick euh, def naa record waxoon na ci wàllu tàggat yaram ñëwut xaw mi ngi noonu record tamit gis nga ko euh, entraînement bu njëkk bu ñu sukkandikoo ci Bakary Cissé ak ñooñam diggante Sénégal ak Congo kon tey jii Sénégal bu juróom-benn waxtu jotee ci ngoon war nañoo tàggatu fële nga xamante ni kon moom mooy ca Congo. merci beaucoup Chérif mu nekkoon li gën a fës ci xëtu ci kanamee di